برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw buñu ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi alayhi salatu wassalam ma ngi wax rabbi sharax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdati min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi mbolo mi ma ngi len di nuyu kan ku nek ci turam ak santam di nuyu mboolem jullit yi rawatina jigen ñi di sante yàlla ci bés bi nga xamne ba ci ziaré mam Astou jankala la ci 17e édition ñu diko taxawal diko def fi ren di gërëm daayira Maam Astu Jànq yi nga xam ne ñoom lañ ko bokkat yëpp ñi xam ne ñoo niroo li nii toog den ak man ci Sénégal ak ci biti Sénégal yëpp fu nekk mu am fa ci àddina bi comme niñ ko limee sànq bëgguma lim di jum léegi du tut fondation bu ndaw fondation internationale la te am nañ ay projet yu mag yoo xam ne ñu ngi ko bëgg a def ci biir Maam Astu Jànq bi école ba moom taxaw na ba pare sax defar nañ ko ba pare pour xale yi di jàng xale yi nga xam ne dañoo jàng mokkal alxuraan ba pare suñ mokkalee alxuraan daanaka ñu ci bari duñ defaat dara ñenn ñi dañuy dem rek bu ñu dee ay jigéen ñuy dem sëyi wala bu dee ay góor ñu dem uti beneen leen bëgg nañ leen euh, di leen jàngal ci école boobu ñu di leen fa defal ay formation gannaaw buñ mokkalee alxuraan di fa jàngal xale yu jigéen yi di leen dimbale ci ci seen diina di leen dimbale ci seen ni ñuy dund ni ñu war a dundee ci àddina bi ndax jigéen mooy école bu njëkk ci lislaam jigéen dafa rëy ci lislaam ndax wéykat bi sax wax na ne al ummu madrasatu isa adata adata saban tayiban al iqraq jigéen mooy école bu njëkk ci ci doom su fekkee ne réussir na école boobu ñu ne réussir na population bu mucc ci ayib kon nag jigéen dafa am solo ci comme ni ko suñ xalifa waxee léegi yàlla am na fukki aaya yum tudd ci alxuraan yoo xam ne fu mu ci tudd góor rek tudd na jigéen yàlla lu mu sant góor rek ci lu baax rek sant na ko jigéen kon nag jigéen ñi ñu ngi leen di gën a encouragé di leen wax na leen ngeen dollee góorgóorlu rôle bi nga xam ne nag ren tànn nañ ko muy violence bi am ci àdduna bi lan moo ci rôle loolu moom dëgg la ndax yaay mooy école bu njëkk bi comme ni ma ko waxee sànq léegi yaay yi dañoo war di yar seen doomi yar boo xam ne am na fu ñu leen di jaarale boo xam ne bu buñ màggee duñ dugg ci yenn yu ñuy dugg nii ñu di ko gis ci àddina bi fu nekk loolu reliyaay la nag moo tax nag ñu taxawal fondation boobu pour jigéen ñi di ci jàng gannaaw buñ taree alxuraan bu ëllëgee buñ sëyee di xam fi ñuy jaarale seen doom yi ak seen njaboot ñi di ci tàllal loxo nag gouvernement bi gannaaw bu buñ gërëmee président de la république gërëm jabaram Marème fay Sall ñi ngi wax président ne ko ndawam yi nga xam ne ñi ngi fii ci kawlax ñoom ñëpp ñi ngi leen di gërëm ku ci nekk def nga sa taxawaay def nga sa ci bés bi ñoom ñëpp ñi ngi leen di gërëm di leen sant ñi ngi jublu ci ay élections yi dañuy ñaan yàlla mu jàll ci jàmm ñu def ko ci jàmm bu mu am violence bu mu am dara ku yàlla jox ndam yàlla na ko jik ku amul ndami tamit nga xaar leneen rek ñi ngi ñaanal ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp waaw di gërëm eh, képp koo xam ne rek jugee nga foo mën jugee ci àddina bi ndax bés bi international la am na ñu jugee ba Amérique am na ñu jugee Gambie am na ñu jugee ba Nigéria buuri kanu bu ñu ngi koy gërëm muy Xalifa Baay ci Nigéria ebal na fi rakkam mu ngi toogoon fii dégg ngeen discours bi mu fi def waaw ñu jugee nañ Mauritanie jugee nañ fu nekk daal ci àddina bi ndax lii dootut eh, bés boo xam ne bés bu bu ndaw la presse bi ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp waaw 2STV mu ngi fi TFM mu ngi fi Walf mu ngi fi Alfayda mu ngi fi Kosi TV mu ngi fi Alfayda Tijani ñu ngi fi Baye FM mu ngi fi Iqra TV mu ngi fi Ruhul Adab TV mu ngi fi Baam TV mu ngi fi waaw Ruhul Adab wax naa ko Baam TV mu ngi fi ah ah Fayda mu ngi fi waaw ñoom ñëpp daal ñu ngi teew ku ma tudd ak tudd maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp parce que ñoom bés bi seen bés la xam nañ ko saa yu ñëwee rek ñoom ñëpp ñu ngi fiy teew ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu barkeel seen liggéey yooyu yokk leen ba rajo yooyu nekk ay télé tele yooyu nekk ay télé international ci àdduna bi fu nekk. waaw ñu ngi gërëm ñëpp di dolli di sant ñëpp di ñaan ñëpp ñoo xam ne ñi woon nañ fi aajo buñ fi indi yàlla na ko yàlla faj ñi war a dellu tamit yàlla na leen yàlla delloo ci seen kër ci jàmm dañ dellu ak fajook aajo. yàlla nañu fi yàlla dajalewaat déwén bu ñu fi dajalewaat na fekk aajo yi ñaanoon yëpp waaw faju na bu kenn manqué ñu ngi dolli di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw di ñaan mbas mi itam yàlla na ko yàlla génnee ci àddina bi ba buñ ko déggati fenn yàlla ñu ci yàlla musal te yàlla ñu ci yàlla musal ba bu buñ ko déggati fenn waaw mënu maa ñàkk a tudd équipe bo xam ne dañoo jugee Dakar am fi semaine Malaw Camara jiite ko Amadou Ly ak Babacar Tall ak Boussa Bali ñoom ñëpp ñu jugee Dakar ñëw fan yi yëpp ndax xam nañ ne jigéen amut kàttan amut doole mën ta taxawal lii nelawuñ lekkuñ defuñ dara ñu ngi leen di gërëm di leen sant Baye moo tax ñu def loolu Baye am na fay yal na leen yàlla fay yal na leen Baye fay waaw ñu ngi gërëm ñi jugee gàmm bi daayira ma astu jànq yi yëpp daal ñu ngi leen di gërëm waaw waaw waaw jéy mi nga xam ne mi nga barhaamu baaun waraun alifun thumma ha